وسعدي daa leen ko wax di daa yàgg naa am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun déet nekk déet ci xas yi xaas la ñu am xaas la am bu wér a wér a wér yoo ne tawee ba ñëpp war nañ ñee te ngeen mënul ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. saaka kookee nga xam ne mooy yonent bi ba léegi indul aw nee na al mujjiiru mooy aji musale ji àll si mooy ki nga xam ne man sañ tubaa xadis tajartu danaa sàkkoo làqutoo danaa sàkkoo xettalikoo bii ci moom minil tifaati min di max naa xan minil tifaati wëlis sama gestu li say in jëm ca mbir moo xam ne yupti u dana yéexal xaddamaa samay ndëggu nee kooku ma leen di wax ba léegi te induma aw turam mooy aji musale ji man sañ tubaa ci moom lay sàkkoo làqutu ngir mu xettali ma ngir lan yoonu ñal wi nga xam ne ku ci topp wala yoon yi bon bon yi wala yoon yi nga xam ne ku ci topp sa sa ndëgg man naa tarxees ba wàcc yoonu yàlla nee ne nee na dama koy teel a xam ca saasa dem làqut ci yónente bi ndax yónente bi boo làqut ci moom dëgg-dëgg jaar nga ci yoon nag moo tax ma ne kooku le mooy aji musale ji mooy ki nga xam ne danaa sàkkoo ak xettali ko ci moom maanaam wëli samay gestu maanaam daal di wan gannaaw yónente bi wala di wan gannaaw yoonam wii di yoonu sunna nga xam ne boo jaaree weneen yoon wudut yoonu sunna man ngaa tarxees te mën ngaa dugg ci pëndub alkanne wala boo jaaree weneen yoon woo xam ne day wuuteeg yonente bi directe jokk ci yonente nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa jokk directe ci yonente bi salaay sam amul kenn ku dox diggam ak yonente bi man ngaa jokk feneen nag sa ndëgg yéex waaye nee nag Sëñ Tuubaa nee na saako ko kookale al mujiiru mooy aji musali ji àlla ci mooy ki nga xam ne xadis tajartu danaa sàkku xettalikoo bi ci moom min iltifaati wali samay gestu li say in jëm ci mbir moo xam ne yuppi u dana yéexal xadamaa samay ndëggu maanaam lépp loo xam ne daal dana yéexal samay ndëggu wala mu tarxeesal sama ndëggu ba tax na du ma mën a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala dama koy teel a xam dem làqatu ci bi ndax mu làqatu ci bi rek léegi nag sama ndëgg ko mën a teg fi yonent bi tegoon foofu rek lay teg tànkam fa mu tegoon tànkam foofu rek lay teg sama tànk fa mu tegoon tànkam foofu lay sama tànk ba keroog maa yegg ci borom bi subhanahu mu ne ci yonente boobee lay sa koo xettali ko wamin makaa idi ahda yi ci pexam samay noonu wamin samani ak ci samay jamono wamin kalaamin ak ci wax ak i xaybam wa aynin ak bët ak i xaybam max balan ànd koog balaa waxammaa ak gumbata muy xol wamin hijaabin ak ciiraay wamin waqafin ak toppatoo lu sama yoon nekkul te mooy xenc lu sama yoon nekkul wamin réew bi akuk sikk wamin xulluwin akuk teengal wa ifraadin ak ëppal man mel ni ñi nga xam ne hurima xañees na leen yërmande borom bi subhanahu wa taala gis nga nee na yónente bopp mooy aji musale ji ci moom lay sàkku xettali ko ci moom ngir lan ci pexe samay noonu nga xam ne kon wane na su làqatu ci yónente bi rek dana ko xeccale ba mboolem noonu saahiram baatinam yépp maanaam day mucc ci ñoom ngir lan sakkoo gin sakkoo xettali ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ci boobu ci lay sakkoo xettali ko ci moom maanaam ci samay jamono maanaam xayu ñooñ jamono ñëpp bu ma ci bëgg mucc benn buntu la naa dem rek làqatu ci yonent bi ngir sàkkuma xettali ma bu ma demee rek mucc naa ci waaye wax yi nga xam ne dañoo am tooke ndax am na ñoo xam ne lu ñu wax ci yow dootoo amati lenn lu baax am na ñoo xam ne buñ la xoolee sa lépp yàqu kon wax wax ju ay am na waaye bët bu ay am na konoon suñ Tuubaa moos du ko du ko muslu ci sindidi kay ndax yi yëpp boo demee ci sindidi ma ngay ñaan yàlla mu musal ñu si maxsari famine wasaril ay ni yàllaw xayu gémmeñ ak ay bët te loolu yonent bi lañ ko njëkk def njabar nañ ko jàpp ko suñu borom wàcc suuratu naasi ak suuratul falaqi mu jàng ko suñu borom dindi njabar ga kon bët bu ay am na waaye nag wax ju ay am na sëñ tubaa boo demee ca téere bu tudd al jawharu nafis mi ngi la fay koo xam ne dafa am bët bu aay kooku dañ koy tëj ci néeg dañ koy tëj ci kër bu ñu xamee ne bu génnee lu mu xool mu yàqu dañ koy tëj rek kooku moom dootu génnati waaye nag ak balaa yi su ma ci bëggee mu ci benn rek la benn buntu naa dem sàkk ko xat xettali ko ci yonent bi waaye nag ak gumba gumba gi nag mu ngi ci jublu gumba xol maanaam laago koo xam ne xolam dafa laago maanaam la ci jublu maanaam nee su ma bëgg a mucc ci gumba xol muy laago xol maanaam damay dem làqatu ci yonent bi dama cee mucc ca sansa kooku mooy am maa booy xool alquran nee ne maanaam yéeféer yi maanaam seen bët yi mi ngi gis de waaye xam nga lu ba seen bëti xol yi fa innaha la taxmal labsaar walakin taxmal qulubu lati fi sudur yi waaye nag ak ciiraay yi xam nga nit ki day am ciiraay yuy dox diggam ak borom bi subhanahu wa taala ëpp nañ juróom-ñaar fukki junne ciiraay la ko mën a dog nag mooy tudd suñu borom subhanahu wa ëpp nañ juróom-ñaar fukki junne ciiraay yu bari nee naa su ma bëggee maanaam lépp luy ciiraay luy dox sama digganteeg lu baax luy dox sama digganteeg yonent bi luy dox sama digganteeg sama borom nga xam ne ay kiiraay la yox na day tax du ma mën a gis yonent bi day man a tax du ma man a jaamu sama borom fa tabaarakallahu ba am ay may yu kawe fa sama borom subhanahu wa taala kiiraay yooyu yëpp la koy dog mooy ma doon làqatu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye amin waqafin mooy koo xam ne day xencu lu yoonam nekkut wala benn muy wax ci làmmañam lu xamut wala muy jëf lu mu xamut moom nga jàng alquran mu ne wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna samha wal fuaadu kullun ulaay kaana anu masolan bul toppatoo yow yonent yi bul xencu bul toppatoo loo xam ne maanaam amoo ci benn xam-xam ndax inna samha naka nopp wal basara ak gis wal fuaadu ak xol kullun ulaay ka kaana anu masolan ñoom ñëpp wala yomal xamee suñu borom subhanahu wa taala neen dañ di laaj ku nekk ci bi ak sikk nee su ma bëgg a ci sikk nee benn bunt la ba tey damay sàkkoo xadis tajartu bii damay sàkkoo xettali ko ci yonent bi rek su Euh, damay sàkkoo xettali ko ci yonent bi ci moom rek suñu borom daal di ma cee xettali waaye teengal ak ëppal muy xulluwin ak ifraat loolu jukkoo yahud yi la ak nasaraan si ba yaa ngi jàng si alquran suñu borom ne yaa ahlal kitaabi laa taxloo fii diinikum wala taqulu ala llaahi illa alxaqi innamal masihu insanu mariama rasulullahi wa kalimatu alqaa xam nga suñu borom bi mu bindee sayidina Isa wuutal ko yaay te amut bàyyi xam nga ko kon kooku ñooñu ëppal nañ gaa ñi lañ ci def mooy nit ña ko toppoon dañoo dem ba di ko wax yàlla yàlla ne du yàlla waaye nag moo yaayam yëpp wa ummuhu sidiqatun kaana yakulaani taxaama ñoom ñaar ñoom ñu dëgg lañ ba tax na dañuy lekk di naan te yàlla nag du lekk du naan ndax loolu mustahil la ci moom yàlla ne kon nag yéen ahlul kitaab bu leen jéggi dawee bu leen teeŋal seen mbiri diina bu leen wax waral yàlla lu dul dëgg xeesaa mii maanaam yàlla ko amal ci baatul kun rek wa kalimatoo alxaala kon yàlla ci baatul kun fa tabaarakallaahu la yónnee malaaka mii di jibril mu wal ca poqtaan ak yaayam di nga xam ne mooy sayidatuna Mariama mu dal di ëmb ki xam ne mooy sayidina Isa ba mu ko dal di imbi kon xeetu yonente bi maanaam xeet wu digg doomi la xeet wi ni mu gën a xeet yëpp mooy xeet wu digg doomi la moo tax suñu borom dafa ŋàññi maanaam seenuk ëppal wa kasaalika jaaxal naa ko moom ummatan wasatan waaye xayral umóori awsatuha maanaam ngën ci mbir yi mooy yi ci gën a digg doomi te xeeru yonente bi xeetu maanaam wasatiya la maanaam xeer wu digg doomi la moo tax kon yi yëpp nee na bu mu ci bëggee mu ci benn mutul damay saako xettali ko ci yonente bi kon boo bëgg a dégg maxaa bi danga naan xadis tajattu danaa saako xettali ko bii ci yonente bi wa min makkaa yi di ax daay ci pexem samay noonu wamin samani ak samay jamono wamin kalaamin ak wax bu aay wa aynin ak bët bu aay maxbalan ànd koog balaa waxama ak gumba xol wamin hijaabin ak ciiraay wamin waqfin ak di toppatoo maanaam lu suma yoon nekkul wamin réebin ak ci sikk wamin xulubin ak teengal wifraadin ak ëppal kaman mel ni ñi xam ne xuruma xañees na leen yërmande yàlla yii yëpp daal su ma ci bëgg mucc suñ tubaa nee na ci yonent bi xadis tajartu bi ci moom lay sako xëcc lu ko ci moom ngir mucc yi yëpp nawaytu yéene naa kaw ne sama nekk abdallahi li am ri digle yi waaye taariki di aji bàyyi nax yi tere yi xay suma xutima fu mu ci man di waree xoolal fu ni benn bayit wax na ci lan mooy Abdoulaye fu ne Abdoulaye yow mi ko bëgg a doon xool baytu sëñtuwaa bi sëñtuwaa Tuubaa nee na Abdoulaye lii rek la topp digli bàyyi tere yi maanaam foo war a toppee digli yi dem def ko foo war a bàyyi tere bàyyee ko fa loolu mooy xay suma xutima fu mu fi man di waree nga xam ne foo war a teg sa tànk foo nga koy teg foo ko war a tegee tegee ko fa <laughs> nawaytu yéene naa ay waay waay kaw ne sama nekkat abdallahi di jaamab yàlla mumtasilan di aji topp li am ri ñeel digli digli yàlla yi rek taarika di aji bàyyi nax ñi ter yi xay su ma waxtuwaan fu mu fi mën di waree fu mu mën a bàyyee ter yi bàyyee ko fa fu ma war a toppee digli yi toppee ko fa waaye nee na moom mustamsikan mbir moom mooy aji jàppandu bi rasulillahi ci yonent bi yàlla bi sayyidina kay sunub sang muhammadin turo mooy muhammad man mooy ka nga xam ne maha farna al ansana tiitaange yi wal wajma ak njàqar yi nee na gannaaw bi ma toppee yàlla doon Abdullahi di jaamu yàlla di bàyyi tere fu mu fi man di waree nee na damay ngooy nag ci sunu si yonente bi alayhi salaatu salaam moom mi nga xam ne moom mooy Muhammad mooy ku fi jëlee lépp luy tiitaange ak njàqare ansaan njàqare lay tekki wajjamaa njàqare lay tekki waaye nag da ngay abal benn bi ansaan firee ko tiitaange waaye nag wajjamaa nga firee ko li nga xam ne mooy ak njaqare waaye Sëñ Tuubaa nee mbir mook mooy aji jàppandu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam mooy sunu sang bi te lam ci jublu rek mooy jàppandu ci sunnaam su tedd si sunnaam ci set wécc si mu ne kooku nag trop mooy Muhammad Muhammad mooy ki nga xam ne moo fi far li nga xam ne mooy tiitaange ak li nga xam ne mooy njàqare mu ne bii taxalaqtu fii sirin wa fii alanin hinaayatan min ilahin saxsaal alama nee na taxalaqtu jébbalu naa taxalaqtu aju naa bii ci yonent bi fii sirin ci lu nëbb wa fii alanin ak ci lu feeñ tubaa nee na ci yonent bi laa jébbalu ci lu nëbb ak kon nag coow li anamu sëñ tubaa kii mooy sëriñam kaa mooy sëriñam sëñ tubaa nee na faxwal wasilatu fii sirrin wa fii ah fanwal wasilatu bii aromu jami alxayru min maliki kooku fanwal wasilatu bii sirru fi alani baana li kulli man lahu manqulu anna wasilatu wa rasul loolu leer na moo tax mu ne bii ci yonent bi taxalaqu ci laa aju fii moo xam ci lu nëbbu fi alin ak ci lu feeñ waaye nag hinaayatan maanaam xaji gi ma aj ci yonent bi fa tabaarakallaahu topp sunu si yonent bi waaye sama lépp yàlla laa ko jibal waaye jaayante bi bi nee na maa ngi yaakaar hinaayatan ay may yoo xam ne ak jagle lay nekk min ilahin mu bàyyi ko ca yàlla mi nga xam ne sax saxa dàq na al alama métti ya nee na gannaaw bi ma ajoo ci yonent bi ci lu nëbb ak ci lu feeñ nag maa ngi yaakaar may goo xam ne yàlla daf ma koy defal maanaam dimbalee ma ko maanaam xin naa yi buñ ko ko arab waxee mooy loo xam ne amoo ko woon su la ko yàlla joxee lam ci jublu mooy dala koo jox ngir dimbalee la ko jàngoon nga ca marlul foo seeni mun su jësab tane ileeka yaa mu xen hinaayatan hinaayatan minka illa ya li tuxeen maanaam ay may yoo xam ne jag lay nekk yàlla jox ma ko mu bàyyi ko ci mam ngir lan ngir mu dimbalee ma ko li tuxeen kon xinaa ya bu ko arab waxee rek mooy loo xam ne dañ la koo jagleel ngir lan mu dimbali la maanaam loo xam ne da lay moo tax mu ne taxalax ko ajunaa bii bi ci lu nëbbu aj ci yonent maa ngi yaakaar xinaa ya tan ay may ay yoo xam ne ak jagle lay nekk min ilahin mu bàyyi ko ci ba nga xam ne sax sax dàq na al alama métti ya nga xam ne lépp luy xeeti métti yàlla dàq na ko ci man maa ngi yaakaar ci moom nag maanaam fa tabaarakallaahu aju gi ma aju ci yonent bi jaayanteeg moom maa ngi yaakaar ca yàlla ay may yoo xam ne jagle lay nekk mu ñëw ci man fa tabaarakallaahu ngir lan suñu borom di ma ko dimbalee xale ya warlul naa loxoo jëmee ci yonent bi li wàccillaahi ngir jëmmi yàlla laa li laqan du ngir neen warlu naa maa ay tagg yoo xam ne maa ay liggéey yoo xam ne maa loo xam ne saroxoo dana ko bégloo moom yonent bi xidmatan ci ay liggéey yoo xam ne xat tux julu gàccal na ñoom liggéey ya alxidama way liggéey na liggéey boo xam ne lépp julli ci yonent bi ak di ko tàggala te nee na warlu bi du ngir neen de waxuma ko ngir neen waxuma ko ngir dugal ci lenn luy waxi mbuusur ak jifi mbuusur déedéet nee na te loolee liggéey la boo xam ne day seddal xolu yonent bi ndax faraxtoo bi xiddamin laa saaniya bégloo naa ko ci liggéey boo xam ne amul ñaareel laxaa minal xiddami lay sa faaniya te liggéey bi amee naa ci loo xam ne du jeex nee na liggéey boo xam ne mboolem ñi nga xam ne maanaam mooy xuddaam yi surga yi liggéeyal yonent bi ku gis liggéey boobee ma jëmee ci yonent bi loolu fa tabaarakallaahu da nga ciy jëlee ak gàcc ak ruste maanaam dalay weddam loo moo tax ma ne warlu naa lu ko jëmee ci yonent bi li wàcci laay ngir jëm yàlla laa li laqan du ngir neen maa loo xam ne saraxoo dana ko bégloo moom yonent bi xidmatan ci ay liggéey yoo xam ne xat tux julu gàccal na ñoom liggéey yoo alxidama way liggéey ña nga xam ne way liggéeyal yonent bi ñëpp liggéey bi ma warlul ngir jëmmi yàlla du ngir neen yoo xam ne mboolem ñuy liggéeyal yonent mu ne wa laakin li fi nekk wanaa lottu na addaxra diirug jamono an hamda ihi walis aw tagam moom yonent bi asuhara waykat ña wan yal asaabian kem lottu baaraam xan masin walis laal li jir min ñeel jëmu sama loolu yëkkati ko na mu jublu ci asamaan nee na yonent yi mboolem suhara u doon tagg yonent bi yépp maanaam waxuñ ñi kan moo yonent bi dañoo dem ba mu gëlam am na ñoo xam ne xel lañ ko doon taggee te suñ tuwaa nee na wamaa ma doxtu ko nu balaay maanaam taggee ma ko ni ko borom xel daan ko taggee waaye nag xaara mi daal di xaare fu aadi dem naa ba sama daxa ji may bindee mujj na ñiis sama xol mujj na gëlëm xamatoo lu may wax waaye nee na gis nga maanaam yonent bi dafa naqadee tagg lu waral lool yàlla ko njëkk a tagg maanaam gis nga nee ne sëñ tubaa nee ne mu mel ni ku taxaw jël baaraamam yëkkati ko na day jéem a lal asamaan nee noonu rek la mel maanaam yonente bi nit ñëpp noonu lañ lotte ci tagg ko maanaam ni nga ni nga taxawee fii tey ci suuf jël sa baaraam yëkkati ko jël sa loxo bi yëpp yëkkati ko na dangay ngay laal asamaan xam ngeen ne moo ne doo mos a laal asamaan noonu maanaam la nit ñëpp soxaraa u yëpp woykat yi yëpp lotte ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ne laakin li fi nekk war naa lottu na a dëxra diirug jamono xan am daahihi walis aw tagga moom yonente bi asoxaraa woykat yi woykat yëpp lot nañ ci tagg yonent ba léegi mën a wax kan mooy yonent bi salaay sam wan yel asaabee kem lottuk baaraam ya xan laal li jir mi ñeel jëmm sama loolu yëkkati noonu tamuy asamaan maanaam daal nu nit lottee ci laal asamaan maanaam noonu lañ lottee ci tagg ba xam jikko yonent bi alayhi salaatu salaam ak yamu lamboo waaye waxu moom yonent bi alqiyaasu mooy xettale waakoon bi àlla si mooy ki nga xam ne yéex mi dana ma xaar xunaa fii cëduna waqadan ak ëllëg yamal xiyaam min kulli ma ci lépp loo xam ne yej lu bu dana bijji alxusraana perte woon na dama ak rëccu nee na mooy xettala waa koon bi mooy ki nga xam ne mooy aji xettale ji mooy xettali waa koon bi mooy ki nga xam ne dana ma xaar fii cëru na ak ëllëg yamal xiyam ci lépp loo xam ne ku ca nekk perte mën na caa juddoo ku ca nekk riccu mën na caa juddoo yonent baa ma cee xaar ba duma dem ci loolee moo tax ma ne waxu moom yonent bi alqiyaasu mooy xettali waa koon bi àlla si mooy xettali waa koon bi nga xam ne yeex mii dana ma xaar man suñ tubaabu naa fii cëru na waqadan ak ëllëg yamal xiyam min kulima ci loo xam ne yeglu bu dana bijji alxusraana perte wana dama ak réccute lépp luy bijji perte ak rëccute di bijji ak nooneel ak i bàkkaar yonent bi moo ma ci xaar ba duma dem ci loole mooy ki ma cee xettale ba du ma ca dem parce que koo xam ne foo toll yaa ngi tagg yonent di julli ci moom nan ngay demee ci loolee fa tabarakallahu njaaraama cheikhul xadim jaada tabe na lii ñeel ma rabbi sama borom bi kaw ni sama nekk dëxra diirug jamono xaadimahoo di aji liggéeyal yonent bi waaye waaye waaye ba tey moom yàlla wa dafee ba tey tabe na ma ak joñalam li si nax wi maanaam mu jëm ci furut samay wàll alxanaa coona waaye nag karama ci mbaaxam ci tiraangam ni ne yàlla moo ma def ma doon kuy liggéeyal yonent bi nee na loolu yàlla ma ko tabe nag loolu fadul taxsiis la sakartuhu isqasane bi san maayisani kon nag nee na sant naa yàlla bi ma jaglelee ma doon koo xam ne maay kii liggéeyal yonent bi alayhi salaam moo tax mu ne yàlla bi ma ko defee itam mboolem luy xeeti coono yoo xam ne mën naa koo yëg ci liggéey bi di ko jànkuwante ci liggéey bi may liggéeyal yonent bi ba mu jural ma ak yàqule sax wala ay onk ak i jafe-jafe nee na yàlla da koo far dindiwaale ci man moo tax na ne jaada tabi na lii ñaan ma ku la may ngay liggéeyal yonent bi kay wax dëgg yàlla war na laa mën a may ne yoon yi boo ci jaaree doo yëg coono war na laa mana a dindal mboolem coono yi waaye say noon yi sax man na la koo dàqal fa tabarakallahu moo tax na ne jaada tabi na lii ñaan ma rabbi sama borom bi kaw nii sama nekk man suñ tuba addaxra diiru jamono xaadimahoo di aji liggéeyal yonent bi wa dafe ba tey tabee na ma ak jooñalam moom yàlla li si waa nax wi mu jëm ci fudul sama wàll ala ana coono yi karama ci mbaaxam nga xam ne lépp luy coono di dox sama diggante nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi fokk la nga daj coono suñ tuwaa ne dajuma ci benn coono parce lay coono yépp ci liggéey bi suñu borom dafa xool ci baaxam rek joñoon ba lépp